bu ñu tëjee tuddee sëñ Abdou Khadr sa xel day dellu ci yàlla sa xel nekk ci dal lu ko waral suñ boroom tabaaraka wa dafa tàggee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca jikkoom sa way jur bu tedd bi suñu way jur suñu yaakaar sëñ Abdou Khadr Mbacké ah xolam day kenn mënatul wax après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Bamba ngay wax leneen lu dul moom itam day royukaay la royukaay ci jikko ci taxawaay pour jubal doomu aadama moo tax bésam bu mag bu tedd bii président de la république son excellence Macky Sall ne ma dem fa nga taxawal ma fa taxawal ma fa pour fat pour wax jullit yi rawatina waa kër Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul wante Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul njabootam mooy di islaam weesale na boppam tarixa Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moo tax bés bu rëy bii bésu dellu ci yàlla la le président Macky Sall son excellence ne ma naa ñëw fedd lil ko kóllëreem kóllëre taalibe ak doom ci kër gi

nek ko xamantene ki kii njëriñ lu Chadalba la am ci senegal ca dal ba ca dayo ba mais également ca xam-xam ba diko à travers son excellence le président Macky Sall maa ko kooku itam maa lay jox président de la république jëm ci moom euh, gërëm bu jëm ci sa gi rek ci yow la jëm di ñaan yàlla suñ borom tabaraka wa taala nga yàgg fi lool te wér mbàkke yow sëñ Cheikh ak say njaboot ak say rak say say tey dëkkandoo say xarit ñun ñii sax ci lañu président la république Macky Sall ci la bokk di sàkku itam ñaan ci réew mi réewu Sénégal bi am Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul euh, sëñ Moustapha fàttali nañu sànq tooyalaat suñu xol suñu xel dalat ci ne suñu suñu waji Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul kenn mënu ko am di tit wala ngay ngay jaxlé motax ñew fi ci sen eut di ëttu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ay ngeenel la fess del mais ñaanu kay la président di ñaan di sakku ñaan nga ñaanal Sénégal yow ak sa njabot yow ak njabotu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ngeen ñaanal senegaal jàmm nawetu jàmm te barkeel ànd ak jàmm wante ñaanal itam waa Sénégal xel yu dal xelu jàmm ndax kii ñuy feete tey ah wàcc liggéeyam nekk na nit koo xamante ne kii xol ba day mën nañ ko méngale ñun ci suñu niveau la suñ borom waxoon ca moom sallallahu alayhi wa sallam innaka la laa xuluqin azim moom day borom xol bu rafet la woon yal nañu yàlla taaf ci barkeem. sëriñ Abdou Khadir mësuñu wan mukk jëmmam mësuñu wan mukk boppam lim nu daan wax naka jëkk rek mooy sëriñ bi référence am dëgg mooy sëriñ Touba mooy ab peesewukaayam lum mu ca natt rek loola lay doxe kon nag yéen it bu ngeen bëggee li ngeen yaakaar ci sëriñ Abdou Khadir ngeen am ko na ngeen ko bëggee. sax leen ci lim bëggoon te bàyyee ko nag li ngeen ko dénk te nekk nekkal ko ci lim leen dénk na ngeen teg sëriñ Touba ci seen kanam bañ xool leen ku am sëriñ Touba ñàkkoo dara waroo tiit waroo jaaxle ndax toppe wuñu ko àdduna si te lim na fi defal kawe na suñu njort kenn ku ci ne yëngu ba nga yëngu am nga ñoo ko yëngoo ndool waaye wóor na leen na ca mel am na loola ci sëriñ bi jagleel kon nag lom yàgg-yàgg bu ko ci gé kenn jéem a fàtte te euh, njariñ nekk fii nga bëgg ca lool waaye xamoo nooy fooy jaare nag ba jariñoo njariñ li loolu itam kenn ku ci ne nañ xam ne doy na sëkk sëkk euh, ak doye di waaye ab jullit ak lottam mën naa bañu yàgg ndax suñu borom ubbil na ko bunt bu yaatu mooy ñaan loola jaaxal rek boo xamul nooy jariñoo ñaanal yàlla mu teg la ci yoon wi ngay tax a jariñoo waaye mbir ba danga ko mën a jariñoo danga koy xam loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moom lañ rek di leen ko fàttali nangeen ngeen bu baax ci sëriñ Touba na ngeen di bu leen di def lu ngeen dégg ci mbedd walla nit di ko wax maanaam nit gis la yaakaar li ci say poos mu lay wax lu la neex di la jay waaye bu la jayet fa ñuy lijjanteel li nga doon def bañ lay jay kooku du ko fekke kon su boobaa bu kenn nax sa bopp bu kenn war sa bopp waru baaxul ndax tam sëriñ bi wax na ko lakin salaamatum min al xururi la amru rabbi asaabul umuri bari na luy mën a war nit jihaat sax des na ci waru te gis nga ko xoo ne mi ngi tuur deretam te seytaane rekk ko gemb loolu day am yeneen yi ci des nag buñ ko waxul bu dul jihaat ji mu tudd itam loolu la ko wa baaduhum qad ghurra bil jihad. xam nga loolu kon day mel ni ku doon ku doon waru bu doon dal nit day mel ni ci luy dëppoog bànneexam bakkanam la ko war a mën a dalee wala jaamu yàlla gu sedd waaye dem ci jàkkaarloo ko xam ne mën naa tóor sa bakkan mën naa jël sa bakkan yow nga mën a jël bakkanam te fekk ak woru la ci yow loolu nag dama cee tudd euh, baat boobu ndax li ko bi wax ci ci ci masaalikul jinaan waaye jaamu yàlla yépp lu ci ne mën na caa dale nit nañ koy moytu ba ci xasaayit yi nit ñuy jàng koo gis rek mu naan xasaayit xasaayit te ñu baree bari xamuñu lan mooy xasaayit bu leen fàtte ne sëriñ Touba ca gànnaar ji ba tey ji fa la joxe ndigal ab kuréel boo xam ne bis bu xëy balaa jant soo ñu wàcc ñeenti kaamil ñeenti kaamil yooye lam ci fos lépp luy jariñ mbooleem jullit ñi la te eh, boobee ba tey ba nim dikkee njaareem am fa fukki at ak juróom-benn ak 1927 la dikkoon fii ci Touba ba tey jii njaareem ji kaamil ba ma nga fay sax ñeenti kaamilam yooyu ba fii ci Touba ñeenti kaamilam yooyu mi ngi fiy sax ak barab bi njabootam gi fi nekk ak li ëpp ci magi taalib yi ko toppoon. kon loolu eh, ndigalul sëriñ Touba la loo xam ne ñëpp luñ teg bët la luñ teg loxo la. kenn du ko fa wàcc di jëfandikoo sa xelum bopp sa xelum bopp buñ la jubbantiwut seytaane mën na lay gidi mën na lay wammat te euh, sëriñ bi ci boppam njëkk loolu lépp dafa wax ne kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xayri zikirin xat rusim ndigalul sëriñ Tuubaa nag am naa yaakaar ci ne ku ku dib taalibeem doo ko dégg di wacc di jëfëndiko sa xelum bop wacc lu la leer di def lanen kon nañ ci lu bu baax ma ngi nga xamne seigne Abdou Khadir lañu yaakar may seen jëwriñ ma ngi leen di wax nañuy moytu bu baax diko labir laabir sama bépp mbokum talibé mu yaakar seigne Touba nañ xamne seigne bi dafa fonk lu alxuraan xasaayid yooyu bo ferul iji mëno jang qasida ta bu la sa say di Eh, bo demee ba mata dal amul kenn ku ma sa gis ñu ñu bindal ko ak xasida naan ko dañ koy jangal da ngay dal alquran ngay wax dal alquran joji serigne touba dafa dik yor njariñam ñi yalla tawfiqal ñep kenn ku ci ne njariñ loli nga ñew jël ci ci sa wàll te kep ku bok ci l'islam ku ne sa wàll nga ci